du ñu sori sax li ñu doon waxtaanee Assane muy mbirum liberté provisoire ak euh, sous contrôle judiciaire ndax Alioune Sané mii lii ñu may Cheikh Bara lañ ko mayoon ba juge ba pare ca jox parquet parquet opposé wu mu dem chambre d'accusation mu jox dëgg li nga xam ne mooy juge bi ba fi mu doon daal Alioune Sané la gën a jege. waaw prison la gën a jege waaye na ko teggi xam nga jege moom mën ngaa jege boo jegee mën ngaa teggi yàlla na ko teggi daal demaat këram. Euh, Sénégal moom daanaka ñi fi ñi fi nekk ñenn ñi contre contrôleur judiciaire ñenn ñi bàyyi néggandiku Sénégal gépp ku fi amul bàyyi néggandiku parce que bëriwul. waaw dafa mel ni ñi ñuy bàyyi rek setal leen bariwul de. waaw bàyyi néggandiku contrôleur te loolu wax dëgg yàlla lu doy waar la. moo xamante ni eh, ñu si bëri da ngay waxtaan ak ñoom ñi naan man de si eh, ay président Macky Sall laa defee nii ay président Macky Sall laa defe ne mais Euh, doon na neex lool ñu bëri di sibile si man si ay président Macky Sall laa takke soxna si laa defee nangam si laa nii xam nga. Mhm. mu jig leen daal waaye ay goo xamante ni daanaka ñu si ëpp si kaso bi lañ la ñuy waxee man ay président Macky Sall si lañ ma arrêté si ñàkk fayda wax dëgg yàlla loolu lu mën a ñàkk la daal en tout cas euh, ñu ngi ñaanal ñi nekk si kaso yëpp ñu génn demaat ñibbi seen i sox ñibbi seen i kër. ñibbi seen i kër d'accord mi ngi noonu Alaaji Euh, Alioune saane de man mbiram jaaxal na ma parce que laajte naa après Alioune lu mu def ñu ne Alioune de da doon dem kër Ousmane Sonko. Mm. def naa ci jàpp ki ñu jàppoon ñoom suñu Cheikh Thioro. Mm-hmm. ca la bokkoon muy dañ fa doon dem di ko seeti leen jàppale ko ci. Mm. parquet opposé na moom itam daf mel ni daal prison la gën a jege. waaw man de man jàpp naa ni euh, ginnaaw li nga xamante ni moom lañ ki seeti Ousmane Sonko loolu du problème defe naa ni daal bu fekkente ni bi jéem nañu ko téye. peut-être que ni li nga xam ne mooy F24 boobu lañu bëgg daal ak sooxe gu euh, ci war a mën a am parce que loolu rek mooy li nga xamante ni bi moom mooy li ci ne parce que F24 boo seetee depuis quelque temps ñoom ñooy taxaw di wax ne ay manifestation di wax ni dañuy def lii dañuy def lële peut-être alir boobu lañ bëgg wàññi parce que bi nga xamante ni bi commencé na def ay déclaration di wax peut-être alir boobu lañ bëgg a wàññi quoi pour jéem un peu arrêté lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu kii ak yooyu parce que koo xam ne da doon dem kër Ousmane Sonko bu fekkente ne bi loolu képp la. Mm-hmm. bon gisuñu ci vraiment loo xamante ne bi war na mën a tax appel di amaat. Mm-hmm. donc bu ñu dee appel am na rek. Mm-hmm. peut-être que ni am na yeneen yoo xamante ni moo nekk ci ginnaaw li nga xamante ni bi mooy mbir mi. mais daal vraiment euh, li nga xamante ni bi mooy euh, démb dama dégg benn waaye def benn vidéo boo xamante ni bi reelu na mais aussi tamit kii na muy wax ne. am na yu bari yoo xamante ni bi nit ñi fi ñu ko xamee ci jamono ji mooy li Assane expliqué sànq. ay mandat de dépôt retour de parquet. Hmm. maanaam léegi xale yu ndaw yi sax. dañ koy fooye comprendre nga. Hmm. juge d'instruction et cetera yëpp yi nga xamante ni bii ñu bari. xamuñu ko woon comprendre nga retour du parquet faire appel et cetera. maanaam affaire yi. léegi dafa mel ni cours la yu ñuy joxe ci penc bi quoi hmm. maanaam nit ñi euh, dañuy xam dañoo dem daal dañuy xam baat yi te duñ xam lu muy tekki sax voilà voilà baat yi nii lañ koy waxee comprendre te yooyu nag wax dëgg fa yàlla euh, wartoona dafa war a nekk loo xamante ni bi yu kii la quoi maanaam bu ñu demee ba di ko wax nit rek kii def na pro procureur def na appel kooku bu nee kooku lu mu def war nañoo bu ñu ko tegee ci table rek mën nañu wax ne ah waay nii nii la war a demee. parce que procureur ñun la fi nekkal. du dëgg. Mhm. moom euh, kii bi la fi nekkal ko comprendre bu mhm. fekkee ne nee nañ def na appel rek. war nañu mën xool bu ñu tegee loolu ci table table ji ne aba ah, jar na ko. Mm-hmm. mais tey bu ñu waxee ne def na appel ñu ne bon lan la lan la kii def. ne mm-hmm. dafa demoon Kër Sonko xam nga yooyu dafay xaw nekk loo xamante ni bi boo ko nee bëcc ci pecc bi nit ñi day doy waar quoi. Mm-hmm. donc je pense que ni moo tax ma lay wax ne la parfois euh, li nga xamante ni bi moom la ñuy wax justice. Euh, am na yu bari yoo xamante ne bi politique bu ci duggee rek day yàq politique dafa am yu bari yoo xam ne da ko yàq. Mhm. tey kilifa diine bu waxee ñu ne fu mu bokk fu mu féete. Mhm. parce que politique ba raataloo na fa. tey journaliste bi bu waxee ñu ne. fu mu féete mhm. ku muy kiiwal. c'est parce que politique ba dugg na fa. tey takk médecin bi bu waxee ñu ne fu mu féete fu mu bokk. politique ba dugg na fa maanaam fépp fi nga xam ni politique dugg na fa da koy yàq. parce que ni ñuy politiquer moo day waar. donc nañu bàyyi yenn yi ñuy politiquer bu ñu demee ba teg yenn yi daal ne lii di la war a demee lii di la war a demee. Mm-hmm. liy tax ñuy wax nit ki professionnel la ci liggéeyam. Mm-hmm. maanaam li muy def loolu rek lay xool mais gisut leneen loo xam ne mu ngi ko ciy dugal. Mm-hmm. tey Assane Mesere mii bu fekkente ne bi nee nañ ko yow mii kat Assane. meilleur chroniqueur nga ña ko ko fal dañoo gis ni peut-être Assane li muy jàngat. am na ci liberté am bu mat sëkk tey xelam lay demee mais amut lu ca rax. Mhm. waaye bés bu ñu njortee ne rek am na loo xamante ne bi rax nañ ko ca rek bu boobaa dafay yàq lépp loo xam ni. boo deful ndànk sax mës nga koo def. loolu mooy nañu. sàmm nañu nañu seppi politique ci mbir yi daal nañu sepp politique nañ ko dindi ci mbir yi quoi. d'accord